jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ñu koy defee saa su ne ñu ngi fii ci géejawaay ki ñu seet si woon nag bi mooy deuxième fois ñu seet ko ci wasaare lamb du fi gan mbokk na ci mbër yi nga xamante ne géejawaay xale yëpp seeni mag la xale yëpp la boole jël oof mbër mu ndaw mbër mu mag xàmmewu leen moom képp ku am licence rek. rakkam la xam naa ci dara ndax gis naa taxawaay bi mu am ci géejawaay tey ñu fekk ko fii ci Ikiri Waalo muy Boy Niang numéro 2 booy Niang maa ngi lay nuyu. <clears throat> maa ngi lay fay di la ziar du nuyu ñëpp du nuyu géejawaay gi ma dëkk du nuyu bépp mbër du nuyu Balla Gaye sama tête de file du ñëpp daal di leen ziar di jox seen wàccuwaay waa tey ñu ñëw seet la anam bi ñu la seetsee bokkul ak anam bi ñu la seetsee woon bi passé ndax yaa ngi ñu ngi dégg sa combat bu taxaw lan nga ñu a wax ci combat boobu. waaw combat bi taxaw na yàgg nañ ko wax quoi mais taxaw na taxaw na fu mu toll nii moom taxaw na quoi saye quoi fu mu toll ni moom jëf rek a des wax jeex na. am ngeen date yéen ñaar. waaw le dix le dix neuf euh, le dix neuf kii avril. dix neuf avril waaw bu ma défilé kenn dootul défilé. barke Serigne Touba. waaye da ngaa jël koo xamante ne dañ koo gëj gis ci làmb. mu mu am loo xamante ni gëj naa gëj nañ koo gis ci làmb gëj naa bëre lu tax nga choisir jël ko. non choisir ma ko de palmarès am moo ko choisir moom champion la nekk mbër mu mag. lu tax ngay wax moom doo tudd turam doomu jalaaw damay tudd doomu jalaaw dama ne champion la. wane ay preuve daan ay mbër yu ay mbër yu am classe. ma war a bëreeg moom nag wane ni wan leen man isam lu ma la ma ne mbër mu am kalaas la waaw. te su soobee yàlla su jour ba dinaa ko wane. xam nga li ma jaaxal ci yow mooy mbër yi fi nit ñi teggi rek da nga leen di jël booy ndongoloo bi nga koy jël moom ci moom nga mujjee jugee ci ndongoloo bu Grand am ndam ci kawam nga tourné waat jël kii nga jël nag di ko gan ci làmb doomu jalaaw ku ne xam na ni bëreem ak mën xeexam ak mën a bëreem kenn na wu ko champion nga waaye xamoo ki nga jël de. waaw doomu jalaaw champion la mën a xeex mën a bëre dama bëgg mu taxaw xeex. dafa man bëre mu taxaw xeex na taxaw xeex ñu taxaw xeex bëre man loolu laa man amaguma koo xamante may taxaw ñu xeex bëre dama bëgg mu ñëw ñu taxaw xeex bëre xeex ñaata minute lu ko neex lu ko soob moom mooy choisir soir bi ne prip maa ngi ci kawam man amul ko arbitre naan prip may bañ a nekk sa kaw soir bi ne prip maa ngi ci kawam billaahi wallaahi wa taala doomu jalaaw soir bi ne prip maa ngi sa kaw arbitre bi abbee sifflé fu mu nekk ma fekk ko fa ñu bëree xeex mu jeex ku ne ñibbi. est xam nga ni maa la mu mujjee gis doomu Jalaw. non loolu garaawul gis ma nii rek mais su lamb jaar ngay gis keneen. man dama xam nga man la mooy sama problème. waaw yow même bu mbër bu mbër matoon deux cent kilos. boo matul cent kilos ko jàpp mu xam fi muy tëdd. parce que sa sa mën a bëre sa xarañ sa xam fi nga jëm ci làmb ñu ci bari xam nañ loolu koo wax mu ne la booy Niang numéro de dafa mën a bëre kenn werantewul loolu. soo gisee ma jël doomu jalaaw doomu jalaaw dafa mën a bëre mën a xeex ñeme moo tax ma jël ko bëgg a wane suma bopp moo tax ma jël doomu jalaaw te bu soobee yàlla soo arbitre bi sifflee fu mu nekk ma fekk ko fa. billahi wala su fekkee li ma lay wax du dëgg yàlla moo fa naan yàlla nañu yàlla may bis ba booba. Boy Niang man moom dama gis benn confiance bu garaaw booy dégagé da ngaa jàpp ni doomu jalaaw moom nooy neex la quoi dafay ñëw rek jéggi jàll. doomu bu bëggee xeex mu xeex bu bëggee bëre mu bëre. doomu jalaaw di champion mag soo gisee loolu dafa am lu ma war a wane man waneegu ma ko man mbër laa nekk xale nag mu def ma paa. victoire nga ne waneegoo li nga bëgg a wane. waneegu ma ko ndax dëgg bëreegu ma ci mbër yu mag yi. billaahi wallaahi wa bëreeguma ak benn mbër mu mag. waaw ah, mais loolu garaaw na de benn mbër mu mag. maa ngi doog a bëreeg mbër mu mag. te bu abbi sibile xam ne maa ngi doog a bëreeg mbër mu mag. boo yi ndaw yi damay dox seen kaw di leen duma di leen daan. ma jàpp. waaw su ma koo xamante ni nag sàmm ni ma la. ma moo mag salaam ñu xam man maay kan. loolu mooy wax ji. xeex ñaata minute nga ko bëgg xeex ñaata minute nga bëgg a xeex ak doomu Kalaw. lamb mu ni ko cey lamb moom lamb ji suba la de avril de xaajugul bay ñëw waaye ñoom lami nag gars yi dañoo mel ni lamb ji suba la cey lamb mais mais mais mais Boy Niang numéro 2 sa diggante ak doomu jalaaw ñu tëj saako yi sa diggante ak doomu jalaaw ñu tëj saako yi xeex ñaata minute la non man ci xeex laa juddoo man ci xeex amoon lu la gënal man su ma amoon lu ma gënal dañuy xeex bëri amateurs yi kontaan parce que loolu mooy làmb man am na xaas yoo xamante ni su ma ko namee lekk yàlla bu ma yàlla may dara ma ñëw ca làmb xeexu ma bëree ma su ma ñëwee ci làmb amateurs yi kontaan ma ñëw xeex bëri am plaisir li ma bëree lan la loolu laa bëgg si làmb ñu man man dafa am loo xamante ni dafa nekk ci man di nelaw. te dafa war a yeewu. kon dara yeewagul ba léegi. dara yeewu li ma def mbapat def ma ko aren mbapat fii ku fi dëgër daan naa la Ama Baldé doo ma daan mbapat. voilà man damaa mën damaa mën a bëre ñeme am fit te su boobaa nañ xam ne damaa mën a bëri ñeme am fit. bi ngay jël doomu jalaaw xam nga xam nga ay qualité xam nga lim mënee ak lim mëneewul doomu jalaaw lan nga jàpp ni moom la gën a mëne ci bëre. doomu moom champion la quoi dama gis daan naa yu yoo xamante ni xam lu ma ñooñu ay saa yi naanaanu làmb mais man man man bëgguma kenn nekk ndaanaan kenn du nekk ndaanaan suma kanam parce que dama mën a bëre man ba bëre jar di jar ñaar dërëm laa mën a bëre. ba tey bëre toll ci ay millions. waaw bëre toll ci ay millions nag. ma ñëw wane wane sama bopp te bu soobee yàlla dinaa wane sama bopp ba ma yëpp xam na wane naa sama bopp. billaahi wallaahi wa taala doomu jalaaw bu ñëwee dinañ xeex bëre te lii ma la wax loolu mooyam am. da nga ko bëgg a amul ma dem te ñoom doomu jalaaw dañuy xeex bëre. comme ni ma bëree Ndongo Lo laay bëree doomu Jalaaw parce que mbër la dafa mën a bëree. Euh, nu mu tuddati booy ñaa damaa bëgg nga xam ni yow doo gan ci làmb làmb xam nga li ciy xew làmb kenn du programme li ngay yóbbu làmb te yow yaa ngi def sa programme. ma bëree Ndongo Lo laay bëree doomu Jalaaw wàcc seere dajeeg moom bàyyi góos bi doomu Jalaaw su dee mbër la mala mu mën a bëri wala mu nekk ndaanaan dinaa ci xam dara. dinaa ci xam dara. da nga koo bëgg a weeja nag. non <laughs> non dama la. am na loo gis ci moom bu koo weeja. man man boog pour te dire is xam lu ma la baax bëreeguma. barke Seydina Muhammad man nag it waroon na fekk ma yor 4-4 yor oto ci làmb yor kër. mais nag suñu mooy dogal quoi ak ni muy dogalee. man képp ku am dara yéene naa la ko. au passage di nuyu ñëpp di ziar di wax ñëpp ñi ngi am combat nekk géej waaye rans yor oto mais loolu weesagul. te ci doomu jalaaw laa koy wane déggoo ma de si doomu jalaaw laay wane ni man dama soxla dara nit ñi xam ko man ak Ndongo Lo làmb confirmation la ma wan ni ma ma doon wan ni nit ñi man ci làmb laa bokk mais làmb ji damay wane ni man dama bëgg dara si làmb. si kàttanu yàlla te dinaa ko jëli. ma fekk la ci école bi ngay contacter nga commencé ñëw école depuis kañ yaa ngi école. non non man école man booy ba am combat rek dama lay jàppale parce que booy yi tamit xam ay mbiru ndaw lañ xam ñun ñoo leen war a mën a jàppale quoi waaw. ñoo la war a mën a jàppale ñoo war a mën a sonn seeni bis parce que ay xale lañ di ñaanal Baye Mandiaye yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal kenn koo xamante ni kenn la ci man muy Alioune Seye yàlla ko yàlla suturaal di ñaanal waaye ko delit Balla Gaye yàlla na leen yàlla may ndam non ñàkk ñàkk du Thiès ñàkk du Thiès ñàkk du Thiès kii nag moom suma xarit la ñoo bëree ndoo man ak moom mais mi ngi si làmb ba léegi te sama jour làmb sax dina bëre ma bëgg nag géejoo lamb ñëpp bàyyi ko xel te xam ne champion la lamb moo waxul dëgg rek mais champion la di ko ñaanal nag xam nga lu ma la yàlla na ko yàlla suturaal ba mu wanee la nekk si moom man xam naa ne moom champion la man ak moom bi ñu nekk booy di wëri mbapat ñoo doon ant mu ñu nekk ay booy yoo xamante ni dañoo teela a bëgg bëri mais nag lamb yoonu ndaw du gaaw man maa ragal yoon bu xëy rek sotti. may ñaan yàlla lépp lu gën ci man rek yàlla na ko suñu borom def. li ma jaaxal. école de lutte booy ñaa bu école de lutte Balla Gaye. tey ñu fekk na Ikir Waalo. non Ikir Waalo fii nii ak Ikir Waalo école de moo jur école de lutte Balla Gaye Aliou suma xarit la léppam suma lépp la. di ko ñaanal billahi wallahi wa taala bu dee benn ndam mooy am yàlla na Aliou am ndam. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam te sama xol laa ko tuddee. Alioune Seye li ma dal moo ko dal wala lu ko raw dal ko parce que ngeen ne waroon na fekk ñu wax leneen mais nag adduna moo bindoo noonu adduna moo bindoo noonu adduna tamit xam a mën nga di dem mais doo xam suñu borom fu mu lay teg waaw man xale yi dañ maa bëgg xale yu ndaw yi dañ ma bëgg sama koñ boo fa booy ndaw yi dañ maa bëgg ñëpp bëgg ma. ñëpp ngay mbalanteel waaw sànq maa ngi gis booy di la ruubee suma grand frère nag mi ngi nële comprendre nga di ma yanu kii dañuy ànd den mu may yanu xam nga di yanu Elton di sëf Balla kon xam nga ni booy boobu waru ko jaaxal bu amee jom xama maanaam def fula def fayda xama nga sax mais ama làmb maanaam doo jël lépp yoral ko sa bopp du noonu waaw bu jëlee lim ku nekk lim moom mu jox ko làmb ju taxaw ak booy bi dina ko jàpp duma ko daan ko. yaa ngi ci ginnaaw. non moom chaque jour yàlla moo def man yàlla moom boole moom. ma rak la ku réew la yarawut nag mais yàlla moo def daf maa bëggal boppam. xama chaque jour mi ngi sama kër maanaam duñu duñu xama sama dara ump ko sama daraam ump ko parce que suma booy la daf ma bëgg te mais nag dafa xaw a yaratiku mais bu defee fula def fayda moom mën booy bi da duma daan ko. ok jaajëf waaw. dégg nga la wax Abdou Diouf Sall na la xeer de. non moom ñëpp nga sonal la bëri ñëpp nga sonal. dafa neex moom sama gànnaar la nit ku baax suma grand frère di ko félicité ci ndamam mi mu jógee waaye di bëggee ñëpp daal di la xamal ne la nag xam nga lamb ji man dama ko soxla soxla naa ko trop trop trop parce que combat bii nii moom mooy wane ni fii laay bëree sama kër sama kër laay bëree stade baa ngi fii jege. stade ba stade ah, kii nu mu tuddati. arène nationale arène nationale laay bëree jege bay bëgg a dee su boobaa nit ñi dinañ ñëw tribune bi moo ma wàcc ndànk dox si kawam du ma ko daan ko ñibbi si yàlla.

bu ko ma xam nga lan laa gënoon ay xor yii xam ne kii daa dóor ba ma lan laa gënoon bëgg mu ñëw indi état boo xamante ni xam nga tey jii man su ma neexoon suba suba ma ngande su ma neexee ngande mais su lamb jaa dinaa indi doole bu mat dinaa xeex ak moom bëre moom waaw loolu moo am solo lamb gis na lamb tey jii ngande ku neex su suba suba man semaine bii di ñëw ku la gis du la xàmmee mais man bëgguma loolu man damaa bëgg suma soxna dama bëgg su ma bëree ba bëree isa am nu ma la nekk ak suma soxna mën si dara loolu moo ma gën lu ma am. ay ay ay dégg. ay booy non ba bàyyi bëre mënoo sa jabar dara loolu moo loolu moom seetlu ñoo yem yor sa xaalis ba noppi xam nga mooy loolu man dama bëgg dëgër te bi soobee yàlla moom na tool lu ko neex man lijjantiwu ma ko boor bi singlee man moom daal la dëggal boppam mu taxaw xeex bëre. rendez-vous kañ la le 19 avril. non le 19 ah, la le 11 la ñu jàkkaarloo moom. le 11. waaw stade Iba Mar. suñ moo ko leer. noo ko wax foofu. ni ko na dëggal boppam. ñu bëre. bu dóor ko mu daal. non bu taxawee mu dóor ko mu daal loolu jarul wax. maa waxam. fa ngay mujj. xamoon naa ne fa ngay dama koy dóor mu daal. barke Serigne Bamba su dëggalee boppam laa mujj du yàgg. su dëggalee boppam rek laa mujj du yàgg. man dama koo xam te moom xaw ma. xam nga la moom a jaaxal ci yow. jikko bi may gis ci Balla Gaye 2 moom laay gis yow loo wax ci làmb boo ñëwee moom ngay jëfe non loolu Balla Gaye 2 mooy sama mooy suñu mooy suñu tëdd fi li muy defee man noonu laay defee rek boo yi gën a dëgër si làmb ji maa leen daan man kon man ñi gën a dëgër laay daan déggoo ma de boo yi gën a dëgër man maa leen daan mais mag yi gën a dëgër laay daan. doomu jalaaw du mag de doomu jalaaw non moom moo mag man. doomu jalaaw moo mag mais yeneen boo yi man maa leen mag. moo mag ci làmb wala moo la mag ci aas. kam bii bëre rek ay morom moo mag ci aas moo mag si làmb man 2005 laa dugg si làmb 2005 laa dugg si làmb waaw lenn rek man lenn rek laa bëgg quoi bis bi réussir Fallou njaay mënu ma ko fay quoi parce que nit ku baax la tamit moom xamalu ma lax bi ñu xamante ba léegi man ak moom quoi rëccu ma ko benn yoon quoi. parce que tamit xam nga nit koo xamante ni lim la wax lim la wax rek def ko loolu jafe na ci town bi quoi promoteur yu bëri bu la waxee rek liñ lay wax du am wala liñ lay wax xam nga mooy loolu waaw maa ngi jégalu nag promoteur yi mais moom li ñu waxante man ak moom yëpp mi ngi koy def parce que tamit xam nga neewoon na ma su ma la tëggalee combat sa combat ak Ndongo Lo su jàllee man dinaa taxawaat ba nga bëri. te taxawaan na si ba ma bëre maa ngi koy sama diggante man ak moom yàlla bu si yàlla yàlla bu si cat dugg quoi nit ku baax la nit ku amul benn problème la. parce que ñu bëri nee nañ ko booy bi yarawul bi xam nga doo leen def mais tamit xam nga boobu ba léegi yàlla ñu te maa ngi ñaan yàlla yàlla suturaal ñu quoi man réew ma man bëgguma ku ma yeb. amoo benn problème man xam naa ci dara man bëgguma ku ma yeb ba ci làmb sax man bëgguma di bëre. billaahi wallaahi wa taala dama bëgg suma njaboot lu ma leen di jox mu lew bëgguma suma njaboot lu ma leen di jox rek mu bañ a lew ba tax na su may bëree dama ciy def fulla ak fayda doomu Jalaaw champion la mbër la mais dama bëgg rek xam ma la ñu bëree bëri bu neex parce que bis lii moo koy jaay quoi. yow fi mu toll nii kon jàpp nga ni daal lamb ji moom bu yéexee ci doomu Jalaaw. non lamb ji dafa war a neex. non bëgg nañ loolu nag parce que combat ñu fi gis yëpp bëgg nañ combat boo xamante ni dañuy xeex bëre mu mel ni Bombardier ak Tapha Tine seen combat boobu neex ci ci ci ci xeex gu métti waay man sama làmb su ma ñëwee su ma bàkkoo day neex su ma bëree day neex man du ma si li may ah, def bis nag ma yaafuus si li may def man làmb damaa bëgg su ma bëree ba bàyyi bëre ku ma xool ma xool la loolu laay def si làmb tal ni de ku la xool ma pour làmb su ma ci amul dara sax damaa bëgg su ma màggee su may doom màgg bu ñu leen waxee leen seen papa jàmbaar la man loolu laa bëgg man bëgguma si làmb ñëw isam lu ma lax ñëw raayante wala kii. ñii ndamoo xaalisu mbër lañ ma lañ ma wuy lakkay lakk lakkaay lakkaay. sa frère am combat bu mag di ko waaj diggante mag doomu Jalaaw noo gisee làmb jooju. waaw xam nga tey euh, sama doom ndey la sama xarit la sama lépp la wallahi du lu mu toog moom xam na sama jikko bëgg ma géejuwaay fonk na ñun mbiru géejuwaay ñun ñu jël boobu cër boobu tam delloo ko moom kon donc bu amee bés bu mel ni comme moom booy xaw booy jalaaw xaw ma booy. boobu waa kay man turam boobu moom xam nga moom dafa xaw a kii quoi maa ngi lay jégal mais nag moom xam na ne moom bés bi du bésam kese. def nit ñi su leen bokk parce que nit ñi taxawoo dañ koy delloo bor bi te ci gàttu ni yàlla ñu ngi ñaan yàlla su bor bi yàlla may ko ndam ndax xolam dafa rafet yow ma damay cité nit fleur de barki yonent yàlla Muhammad xol bee rafet moo tax ci bësam dañ ciy sonn ñun yàlla na ko yàlla fay xolam te ci bés boobu noonu di nga xam ne am na bés. dafa mel ni Lac de Guiers moo am combat parce que ñaari doomu ndayam xam naa ne am nañ combat muy Boy Niang numéro 2 ak euh, nu mu tudd Alioune waaw xam nga boo nee Alioune Seye 2 ëmb nga lépp. la ak 5000. mu kooku moom moo nekk fii sori jaay waxam parce que buñ fi ñu lay toog di wax fii ba suba du jeex. Euh, waxtu bi ñu amoon. jot na. lan nga lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga ko wax. waaw parce que tamit ñi fi toog nii ñëpp di expliquer dañoo baax rek di wax mais àdduna moom soo defee lu baax bu la kenn fay suñ borom fay la mhm. te ñun géejawaay rek moo ñu yor. waaw la dëggee tamit nekk nit ku baax koo xamante ni xam nga mooy loolu Abdou Diouf suma grand frère la suma rakk yi nekk fi ñoom maaji maaji ma leen di ñaanal ñoom combat am ndam ak euh, booy kii nu mu tuddati maalaw maalaw ma soose dafa war a am combat am ndam ñeneen ñi am combat booy yëpp am komba daal loolu laa bëgg man sama xol euh, non stress laay dund yéenoo ma kenn lu bon yéenoo ma kenn leen su ma sañoon ñëpp gën ma nekk champion. parce que àdduna moo bindoo noonu quoi. àdduna moom xam ne da yéene nit ñi rek yàlla yéene la. voilà waaw. taaliba seex moom xam nga maa ngi koy ñaanal mu amaat combat parce que def na sorti bu garaaw daaw waaw kii nag suma xarit la suma doomu ndey la waaw bandi la nag mais suma xarit la suma doomu ndey la euh, bi nekkee xale bi nekkee xale ba léegi suma gaañ la. bi ngeen nekkee xale ba léegi yéen ñaaree ànd. xale moom moom nekkee xale. ba léegi kii am naa combat boo xamante ni ma naa saraxe naat. naatam dañ ne ma naa saraxee kii nu mu tudd kinaara. Ah, di boof. am ay cuuj yu ndaw di bo di boof quoi. amagul ay cuuj ma ñëw ne ko kinaara laa bëgg mu dem jëli kinaara bi boof indi ko. billaay wallaay wa taalaay kii suma xarit la suma la kii moo tax may góorgóorlu ci làmb ndax su génnee dañ koy buñ ko bëggee yëngal danaa ko maa sekk du dara mm-hmm. moo tax may rayante pour bañ kenn koo xamante ni da koy ree gis nga làmb du dara làmb xam la jom ak fulla ak fayda ak xam li nga bëgg te man xam naa li ma bëgg am naa jom am naa fayda ba ma kenn gëmul laa gëm sama bopp man ay temps kenn gëmu woon parce que làmb day toll moment yoo xamante ni xam nga mooy loolu mais ma gëm suma bopp di yar sumay ginaar di jaay xam ne am na luy nelaw ci man te te loolu day yeewoogul sax te dama bëgg mu yeew di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Asafin waa Asafin di nuyu ku ñuy wax euh, euh, Nguuda. Mhm. grand Nguuda mhm. su ma amee combat da yëkkati ay ay ay mini ay millions di ma jàppale. Mhm. di ma jàppale tabaski jot mu jëndal ma xar defal ma lépp grand Nguuda maa ngi koy ñaanal lu mën ren yàlla mën lu ko lu ko raw di ñaanal euh, Masata. Masata Alioune Ndiaye maa ngi koy ñaanal di ko wax combat bi na si jàpp di wax Jéy komba bi na si jàpp. di wax Abdou Diouf combat na si jàpp di wax Lirou combat bi na si jàpp di wax euh, Béydi suñu maire combat bi na si jàpp parce que combat bii nii ma sama capital di woo ñëpp di woo suma soxna Soda jàpp si combat bi di woo mu jàpp si combat bi di woo Andaw mu jàpp si combat bi di woo ñëpp ñu jàpp si combat bi di woo kenn koo xamante ni xam nga daf may jàppale di sonn ci man Massaer maa ngi koy woo mu jàpp si combat xaritu Dieye Massaer maa ngi lay woo si làmb ji nga jàpp si parce que tamit xam nga di woo Lees na si jàpp di woo Balla Gaye 2 na si jàpp di woo euh, Lac na si jàpp di woo ñëpp nañ si jàpp te xam ne làmb ji man bëgg naa ko te billaahi wallaahi wa taala su làmb jaa su ma sumeekoo ne xam ne bëgg naa làmb ji. promoteur bi di ko wax ni ko man duma gën a gore parce que nit ku baax la hmm. teggi fi mbër yu bëri tëgg ma. billaahi wallaahi lu ma mën a def pour bis bi réussir dinaa ko def ci kàttanu yàlla maa ngi ñaan nag képp koo xamante ni xam nga yaa ngi yëngu su làmb yàlla na la yàlla jàppale. muy écrit boo mën di nekk parce que làmb dafa metti maa ngi ñaanal ñëpp ñu jàpp ci làmb man damay dox ba si yàgg sax ñu ne moom est que war a jéem la tukki jéem a nii non man dafa am lu ma war a wane si làmb. billaahi wallaahi musuma dem ci benn ambassade di ko ñaan parce que man xam naa ne man bër laa te su ma bëreeg doomu jalaaw pare dinaa wax ni man lu tax jéem ma génn dëkk bi. dinaa fi ñëw ñu waxtaan ci gën koo yaata. waaw noonu la fa demee nag. Mm-hmm. bu soobee yàlla man homme de défi laa te billaahi wallaahi wa taala làmb dinaa ci am sama wërsëg. Mm-hmm. billaahi wallaahi wa taala bu soobee yàlla su ma yàlla rayul mm-hmm. parce que li koy maye lépp damay liggéey damay entraîné. kenn dàquma bare gisuma kuy takk ngeem ku ma dàq bare gisuma ko. booy ña gisuma ku ma gën a ñeme. Mm. gisuma ko mm. kon lamb ji lan moo si des gëm sama bopp maa ngi am combat di bëre di daan gëm sama bopp nag lamb nag moom moo bindoo noonu mm. waaw gaaw dem yéex dem mi ngi mel ne nga jëm pikin rek jaar technopole bi nga wala nga jaar marché marché zinc da ngay dem Pikine te incha allahu rabbi dinaa egg Pikine waaw maa ngi koy ñaan di ko xol di wax waa kër Assane nañ ma jàppale waa Saam waa Daaru waa kër waa Jëmooy waa Kaolack euh, Jantal Mara maa ngi lay woo si combat bi nga jàpp si bu baax Jantal Mara jàppal si combat bi waaw di woo euh, Mara Modou maa ngi lay woo jàppale ma si combat bi bu baax a baax waaw di woo waa Fimela waa Diofior ki yëpp nga xamante ni fa ngemboo maa ngi leen woo jàpp si combat bi di woo waa Ziguinchor waa Kaolack waa Tamba waa Louga ñëpp maa ngi leen woo sama sëriñ yi nekk. ñëpp dinañ ñëw booy ña. sama sëriñ nekk Tamba yi nekk Louga maa ngi leen woo ñu jàpp si combat bi ki nekk Casamance jàpp si bu baax parce que loo ma wax si làmb dama koy gis waaw damaa bëgg bii nag nga jàpp si bu baax mm. di la wan nag doomu jalaaw làmb ji man maa la ko gën a bëgg fop yow da nga toog ay at bëréewoo dinaa la yan loo xamante nii ku ku bëréewul dinaa la wan ni ku musul bëre ni ñu koy def balaa nga dinaa la duma balaa ngay xalaat ma bëri yow daan la ci kàttanu yàlla di ñaanal suma xarit nag mu ubbi jour ba maa ngi koy ñaanal parce que maa ngi koy combat dina si bëre maa ngi koy ñaanal mu ma tëj ci kàttanu yàlla waaw parce que kii am na loo xamante ni mi ngi nelaw si moom lu ko raw li nelaw ci lu ko raw mi ngi nelaw si moom di ko ñaanal Alioune de yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam jàppale ko ba nga xamante ni xam lu ma lax ñëpp ñu doon wax ci moom dootuñu waxati parce que cas bi ma dal rek moo ko dal parce que làmb dafa metti làmb gis nga boo neexlawul loo wax du dëgg kenn du la déglu mais nag yaa moom yàlla may na ko leen dugul ci kenn xëccoowul ak kenn deful concurrence ak kenn mel nen maa ngi koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla jàppale fay ko xolam. Euh, Euh, booy Niang numéro de wax ji rafet na loolu macha allah booy Niang boo ñëwee ndeysaan rakkam yi mu bokkal wala magam yi mu bokkal ci làmb la gën a yéene sax ko boppam te làmb noonu la wala àdduna sax noonu la lépp bi am na waat boo xamante ni sëñ Bas nit ñemewu ko waat ne lu ma lépp lu ma la yéene yàlla naa ci jiitu te ndeysaan saa yoo ko dékkee micro wax jooju lay wax mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ba ëllëg incha allah ci xew làmb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf.